Zarko Zarko. d'accord naa wuyu ma déglu ma déglu ma déglu ma. li ngay wax lii arrêté ko. waaw déglu ma ko parce que fu muy mujj du neex. déglu lu leer laa la wax. arrêté ko sinon fu muy du neex. waaw wax may ñu wax bu topp sax mer calme toi. grand toog ma sama toog ma sama mer rek toog ma sama mer rek. yow xaaral yow yaa ànd ak xale yi yaa ànd ak xale yi. grand kaay kaay kaay wax ak moom kaay kaay grand kaay. mais tam du yoon tam ñu gis koo xam ne dafa yor pompe yaa ngi gis nii yaa ngi gis nii dafa yor pompe léegi léegi léegi. non kay kay lii lii ne la rii. lii bu yore arme bi laa xaaral ma la am li nga bëgg. voilà. jago di nga am li nga bëgg bu ñu la ñaanee nga nangu. kaay kaay kaay. Assane Ndiaye rek Ndiaye métti def na ma lu ma métti dëggantaan. barki yàlla xool ma baa ma taxaw s'il vous plaît calme ngir yàlla. calme-toi calme-toi. champion nga booy bu ndaw bi booy bu ndaw bi déglu ma booy bu ndaw bi bu mu tax bu mu yàq sa way. booy bu ndaw bi booy bu ndaw bi bu mu yàq sa way. s'il vous plaît teel sa calme teel sa calme. champion nga booy bi day mel ni booy bi il a fait quelque chose. booy bi il n'a rien fait il n'a rien fait booy bi mi ngi si biir mi ngi ci jàmm. ñeneen la ñu jotel kon bul wax booy bi. ko ci sax dugal supporteru booy bi voilà supporteru booy bi uh-huh. bu ñu yàq sa way non déglu kii déglu kii lu mu lay wax bu ñu yàq déglu kii lu mu lay wax góor gi mënu ko def non déglu si ay ay sa mer yaa ngi toog sa ah, boo xam ne garaawul garaawul après bu doon bési mooy perte rek parce que man ma tooñ ñoom ñoo ma ne bul indi kenn bul indi kenn ma toog waa grand yëpp ne ma dañuy ñëw ma ne leen bu ma ne leen bu leen ñëw ñëpp ñëpp ah, toog ma ñëw ñii ñëw mbooloo di def lu leen lii moo ma daloon moo ma daloon Thiès uh-huh. ba ñu jam samay booy yu bëri ah loolu nag je le dootuma ko defati ci àddina voilà ñaanal